ndeysaan booy booy melax doomu suñu papa Mouhamed Ali la booy melax am na benn avertissement ndeysaan njaga caama ngi noonu ndeysaan may laaj ci taarix est-ce que Pape Diop Boxon naa dajeeg Mouhamed Ali gars yi nee xeex nañ jël na ko daan na daan na laay njaga caam daan na daan na ko vite fait bien doomu gaynde gaynde lay doon Pape Diop Diop bokk sa nay sa baay daan na jël bu rëy ndeysaan